Gambu Njaasaan ñëw na na ko waajal ku fa dem yow texe nga suufam ja sella na Gambu Njaasaan ñëw na na ngeen ko waajal ku fa dem nga suufam loolu yàlla la gàmmu njaasaan ñëw na di saa na ngeen ko waa walaay walaay fa dem yaw teexe nga suufam sa sell na yow mi di dem gàmmu njaasaan xamal la fa yóbbu soo demee na nga jaamu yàlla maam Cheikh bu teral ñëw na ndeysaan na ngeen ko waajal sama cofeel ci borom Njaasaan bur yàlla laa koy seedeel maam Cheikh boobu ma puus may dem di maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaar gannaaw bu nu sante yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sant sunuy waajur sant nag xalifa bu tedd bi di seexal al Bekkaay Bekkaay ñu ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi lool ñëw na nag ci bésu rasulillahi seen maam ndax ku xam Njaasaan xam na ñoom kii jur mooy ngénte donc nag looloo waral nag gàmmuwaat bi ñoom ñi xam na ñooy mbokk rasulillahi ñoom ñooy ngénte tey waaye tey foo dem nag ñëpp ngi koy màggal. waaw ren li ñu gis nga sànq bi ma duggee muy gàmmu Ndiassane ñëw na sama rakk ji moo ma yóbbaale sax mais d'habitude su may départ damay départ si hymne national bi nga xamante ni mooy sunu drapo sunu rakk la moo tax bëgguma ko vexé waaye nag dama koy xamal pour en cas ëllëg su ibbeeku rek muy baatu laa ilaha illallah moom la ñu Seex Si Lamin bu jox parce que moo jëkk mu moo mujj salaamaaleykum maa ngi tudd aadama Sow ñii nekk sama ginnaaw ñun ñooy daayira Axlu Bayti Rasoul bu Ndiassane Bambilor. bu seen président bi nu Astu Sow ba mën a dajaloo tey jii. Ah, at bu nekk dinañ dajaloo def réunion waxtaan ci affaire gàmmu bi euh, surtout. ñu waxtaan ci affaire solu yi na lépp di yiw waxtaan ci li ñuy sol ak li ñuy togg ak lépp daal ñu ngi ciy jàng parce que euh, ki ñu jiite muy suñu sëriñ mooy maam bu Kunta en plus tamit mooy imaamu dëkk ba Ndiassane Bambilor moo fay imaam bi dañoo tamit tijji suñu groupe boo xamante ni chaque vendredi imaam bi dafay dugg di ñu baaxee waa ay waxtaan yu am solo ci groupe bi yii macha allah. bu démb bi tamit foofu moom deewoon naa ba pare <laughs> mooy bu Cheikh Bou Diop di def fële kaw trop at bu ñëw rek dàkk morom ba. nan ngeen di ñaan fi nga xamante ne dëkk bu sell. ah man de su ma sañoon lii ma nekk du ci biir daara bi ci am borom parce que gëm dof nak <laughs> waaw yàlla na ko def ñu ngi leen di ñaan a gudd fan yàlla bàyyi leen suñu kanam euh, ñu ñuy gunge chaque année am na maire sax maire boo xamante ni si ñun la bokkoon muy Fat ñu ngi koy jaale waale bu baax di ko rendre hommage ñun la bokkoon tey yàlla jëlee ko fi yàlla na ko yàlla yërëm te jégoo ko ay bàkkaaram xaana laay walhamdulilaay laa ilaaha illallaah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 raxmaanu yaay yàlla yaay euh, moom la ñuy tijjee moom la ñuy tëjee tamit baat yi moo dee parce que démb <laughs> xaw nañoo rey suñu bopp si Cheikh Bouba loolu moo tax waaw mais kontaan nañ bu baax baax maam bu ñu ngi koy ñaan gudd fan ak wér gu yaram surtout yàlla na ko fi yàlla bàyyi duñu tàyyi si di ko wax ak ñu topp si ginnaawam yëpp ay magam ak ay rakkam ak Pape sama Keita moom moo ñu jàngal lii tey mu ngi nekkee ba sàngal Sangalkam moom moo def ah, xam-xam bii si mun naa kaa wax parce que moo ñu jàngal ay woy voilà ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ak ñi mu àndal ñëpp <laughs> ah yéen tey li ngeen def dafa rëy waaw kontaan nañ bu baax si yéen mhm. parce que mun naa ne mhm. bii mooy suñu première fois caméra di ñu jël mhm. waa